voilà ñu lay nuyu mbay Jacques Diop. waaw maa ngi leen di nuyu di la fay di nuyu seen auditeurs yëpp. yow ngay chargé comme de la communication bu ministère des sports maanaam ya yor kàddu gi euh, doon tamit conseil technique bu ministre bi Mbaye waaw aussi di aussi administrateur des plateformes club des experts sportifs ak Globe Sport muy ñaari plateforme yoo xam ne dafa dajale parce que ay euh, borom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci sport mhm. ak ay anciens ministres des sports ak ay ministres yoo xam ne sax ñu ngi à l'activité dans le gouvernement ak ay nga xam ne daal seen xam-xam ñu xalaat di ay universitaire ak yooyu yëpp moo ngëm yooyu yëpp quoi ñaari kuréel yi. Mhm. Mbéjéeg ñu wax ci mbir mi nga xam ne mooy lëmbe jamono ji actualité bi mbiru Gana Gueye euh, tey ban commentaire justement nga ci def ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, lynchage gi mu am jamono ji am nga lynchage bi du lynchage parce que des fois tubaab yi dañuy bëgg ñun ñuy xool ñoom li ñu bëgg ñu koy def ñoom ñuy bëgg ñoom li ñuy wax ñun ñu koy jëfee. Hmm. ak yooyu te ñun ak ñoom bokkuñu ay culture. ñu ay religion bokkuñu ay gis-gis bokkuñu ay diine. Mhm. te man yaa man ku xa man comprendre tuma sax jikko tubaab bi. Mhm. xoolee bu njëkk tubaab bi dañ doon xeex loo xam ne moom nañ doon wax l' exception culturelle xam nga amoon na lu ñu wax les accords de Gates là mooy accords yi nga xam ni GATT mooy accords yooyu dafa amoon ay accords. ci face à la puissance culturelle américaine parce que mhm. boo amoon na ce qu'on appelait le blue jeans ay t-shirt ay coca cola yooyu yëpp tubaab yi dañ ko doon xeex pour préserver ñoom seen ay culture mhm. tey tubaab yi ñu bëgg ñëw benn position agressive mhm. am benn volonté pour ñoom bëgg ñu imposer li nga xam ne moom mooy ay homosexualité ay libertinage sexuel ak ay yooyu mhm. léegi ñun dañuy laajte fan la droit à la différence ne ak duñ doon tur ñoom bu njëkk kon ñoom liñ woote ko woon waaw et Europe aussi surtout français yi war nañ xam ne nit mënoo effacer en tout cas wala nga gome différence yi am entre les populations du monde mënoo ko gome. Mhm. loolu ça toujours existé te day day day existé bu loolu suñu borom moo ko moo moo ko def. Mhm. léegi aussi dañ ñu war a jox cër bi nag ñun aussi ñun ñoo ko war a gis nga mbéjum kanam mhm. borom a koy fajal boppam. waaw maintenant il est vrai que euh, euh, seen euh, ancienne candidate à la présidentielle Valérie Pécresse mi nga xam ne mooy. Euh, le président du conseil régional de l'île de France, mm -hmm. une déclaration, une sortie pour condamner l'acte de Ghana. Mm Mais, ñoom dañu ay idéologie yoo xam ce qu'on appelle des idéologies dominantes. Mhm. léegi ñun est-ce que ñun est-ce qu'il faut punir tous ceux qui sont dans l'homosexualité tous ceux homosexuels ou dans l'homosexualité mhm. loolu dañ koy bàyyi mbiru yàlla la yàlla suñu borom moo koy moo koy moo koy fajal boppam mhm. mais ñoom dañu xam ne l'homophobie ñoom crime la ci seen ay seen ay système de représentation. Mm-hmm. léegi na attaques yi ñu attaqué ga Ghana attaques yooyu dafay ça s'adresse à nous tous ñi nga xam ne ay juristes lañu ñi nga xam ne ay chrétiens lañu. Mm-hmm. te ñu dëkk ci dëkku Afrique yi bañ mbirum góor jigéen bañ mbirum homophobie bañ mbirum homosexualité. Mm-hmm. waaw. léegi nag man xam naa ni xëy na dama ragal tubaab yi dinañ def ci seen naa les clauses de contrat là. ak seen agents yi. dañ def clause yi ay affaire woy boo signé contrat war nga respecté lii war nga affaire góor génn ak yooyu mm-hmm. ah ñun sëkk ñi nga am xam ne am nañu ay voix ñuy porté war nañu génn mm-hmm. parce que ku mel ni par exemple Youssou Ndour war na génn mm-hmm. oui c'est une voix qui porte partout dans le monde va pouvoir se prononcer ndax da nga ndax da nga xeeb ñi ñi ñi prononcé wu déjà Mbaye ndax da nga li nga gis déjà ci soutien. xeeb bu ma ko du ma ko bu doon benn nii sax bu fekkoon ni man la rek man mi nga xam ne je ne représente du ma ko mm. mm-hmm. mais am na ñoo xam ne par exemple le président Macky qui est le président en exercice de l'Union africaine a fait une sortie mm-hmm. le mm-hmm. président Augustin Senghor qui est vice-président le premier vice-président de la Confédération africaine euh, de football a fait une sortie mais loolu doyul mais ñooñu am am na ay sommité sportive africaine yëpp nga foofu war nañu mun a prononcé wu si cette affaire là. Mhm. parce que sinon bu boobaa dinañu gën a mbéj dañuy wax loo xam ne wala dañuy def loo xam ne ëllëg buñ ci mën mhm. tey jii euh, euh, kon lii firnde ne ne euh, Idrissa Gana moom mu ngi ci droit te du am benn conséquence tamit ci contrat am bi nga xam ne léegi mu jeex daanaka. gëw ma ko parce que xam nga ndax gëw ma ko. Mhm. parce que Idrissa Gana Gueye Mm-hmm. nekkoon na Angleterre nekkoon na France Lille la njëkkee. Mm-hmm. mais Idrissa Gana Gueye Sénégal ñoo ko formé. Mm-hmm. ñu formé ko fii ci institut Jambar avec le président Saër Seck. mu def fi lu mëcc ayul ba ñu gis ko fi mu dem lil nekk fa champion de France moom def fa doublé moom ak ñoom ñoom ñoom Moussa Sow ak ñoom Pam Ndiaye Soare. jóge fa dem Angleterre. ñu recruté ko fa. gars gis ko foofu Paris saint gis ko fa ñëw jël ko. mu fi def lu mat ay Idrissa Gana Gueye tey amul lu muy euh, lu muy lu muy lu muy ñàkk. Mm-hmm. parce que li mu war a def def na ko raaye bu footballeur war a am tey Sénégal def naa ne kenn ëppalewu ko ndam. Mm-hmm. à part Sadio Mané. Mm-hmm. il est le le plus titré ñu bëgg ko ñu bañ ko. te yàlla may na ko ko donc tey amul dara lu muy tey gën a dañ ko tax gën a jox doole. te yàlla mooy àtte suba te yàlla incha allahu rabi dina ko fay wala mu mhm. fay ko njabootam. Mhm. lu ci a xam mooy que ni tubaab yi dañu bëgg a impose loo xam ne mënul am gis nga rek le choix du ballon d'or sur cinquante quatre nations vingt et un la ñu jël. Mhm. vingt et un yoo xam ne maanaam matul sax xaaj ñoom Europe ñaata lañu xaw ma ay seize xaw ma matuñu sax vingt. comprendre léegi nag bëgguñu seen domination dañ ko bëgg a wane loolu yëpp pour xam nga lan pour effacer la mémoire collective des sportifs gis nga Sadio Mané ni ñu ko geeree ci ballon d'or bi même Angleterre jëluñu ko parmi les meilleurs footballeurs mm-hmm. loolu mooy dañu bëgg tracer un boulevard à Benzema pour mu gagner ballon d'or mais gis nga yàlla mm-hmm. li jox kenn mënu ci dara dañuy sonn rek dañuy sonn sonn sonn sonn ñun nag du ñu accepter loolu accepter mooy il faudrait que aujourd'hui l'Afrique doit marquer le boycottant le ballon d'or. nan Afrique euh, mënee boycotter justement tous les pays les vingt et un pays là qui ont été choisis pour pour les vingt et un pays qui ont été choisis pour voter le hmm. ballon d'or. ñu hmm. oui tu marques le coup pour leur montrer notre indignation notre désapprobation. Hmm. notre mécontentement vis-à-vis de certaines choses. qui se passent dans le sport parce que sport bi y a racisme moo ëpp ci dans les instances internationales comme la FIFA mais ay nit ñu weex rek nga fa gis ñuy liggéey doo gis mukk nit ku ñuul bu fay liggéey doo ko gis soo ko gisee rek xoola sur sur sur deux cent ou bien sur sur cinquante ou bien soixante instances. Mhm. benn wala ñaar nga ciy gis ñuy liggéey. am am am am responsabilité dans les instances internationales. et après dafay mel ni luxe la quand même. loolu aussi au niveau de mhm. l'Union africaine. war nañu ko xeex. Mhm. parce que l'Union africaine a un a un comment dire a une commission chargée du sport de la culture ak yooyu ñoom ñoo ci war a ñi fa nekk aussi ñoom dañuy nelaw. parce que aussi souvent dëkk yi aussi dañuy war a yooyu yëpp dafa war ça doit faire l'objet d'un appel d'offres ñu xool quels sont aujourd'hui les profils qui peuvent répondre mhm. à ces conditions là yóbbu leen fa mais souvent dañu fa yóbbu ñoo xam ne buñ fa demee duñu fa liggéey dara loolu ay nelaw <laughs> donc loolu aussi moi vraiment je lance un appel à l'Union africaine <laughs> aux instances comme la CEDEAO comme l'UEMOA comme l e, comme euh, l'UDEAC ñu jéem a xool sport bi parce que sport dafay dafa doon loo xam ne tey euh, en de politique publique dafa am solo mhm. parce que sport dafa am lu ñuy wax euh, dimension au delà de cette dimension classique muy dimension politique bi muy dimension éducative mhm. ak dimension sociale mhm. sport dafa am ay dimension yu bees dafa am une dimension géopolitique mhm. dafa am une dimension géostratégique dafa am une dimension économique mais dafa am aussi une dimension diplomatique donc loolu ñun war nañ ko sukkandiku parce que tey l'Afrique c'est le continent de l'avenir le gens viennent partout pour créer des académies gis nga fii Sénégal rek am na Dakar Sacré-Cœur am na Génération Foot am na Jàmbaar ñu fi créé yeneen académie ak dans les pays comme la Côte d'Ivoire le Nigéria ak yooyu loolu moo lay wan ni ñun war nañu war a mën a gëm suñu bopp xam suñu bopp ba ñépp ku ñu bëgg mbéj ñoon nañu balaa nga ñëw mbéj ñun ñu mbéj la mhm. wan la gëm nañu suñu bopp et tey nan nga jàngatee justement taxawaayu entraîneur am gi mel ni tey da ko buux askan wi ñu gën ko non entraîneur am il est en disgrâce parce que lui il est sur siège éjectable dañ koy waaj dàq mhm. parce que dañ ko indi woon mu def loo xam ne moom c' le pire entraîneur bi c' le plus piètre entraîneur de l'histoire du euh, Paris Saint-Germain dans l'histoire qatari mhm. boo xoolee ñaari trophée la gagné en deux ans mhm. waaw gañewul championnat ren mu gañe ren gañewul benn coupe coupe moo lay won ni kooku dafa nekk ci siège éjectable boo nekkee ci siège éjectable te fi ne nii xam nga football dafa am racisme ba léegi. d'accord war nañ ko gëm racisme ça existe jusqu'à présent. Mhm. mais gis nañ fi Kylian Mbappé bañ a bañ a coller son image à des jeux. Mhm. dans en équipe de France. et pourtant personne n'a trouvé rien à dire personne. Mhm. Marcelo capitaine euh, bi mu nekkee capitaine u de Madrid bi ñu def affaire yooyu il a refusé de porter le brassard. donc ñun dañuy yëpp. mais yëpp boobu ñun ñoo ko war a dindi ñun ñoo war a gëm ñun suñu na suñu continent bi continent avenir la ñu bëgg ko ñu bañ ko c' est le mm. continent c' est la destination la plus prisée boo xoolee tey comprendre nga donc mooy li ma doon wax rek war nañu ñun xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu doxin mm-hmm. waaw di bokk bokk juboo déggoo d' ñu wax ci euh, trophée tour bi nga xam ne mu ngi am jamono ji euh, luñ ci mën a jàpp waaw trophée tour bi c'est une bonne chose quoi le mm-hmm. président de la république excellence Macky joxe benn genre raaya boo xam ni ne raaya bi dina dina dina def toutes les euh, capitales régionales et départementales du Sénégal loolu vraiment dañ koy rafetlu parce que bu njëkk trophée dara ñëw rek yam Dakar mm-hmm. et loolu dina discipline bu ñu gañee trophée mm-hmm. ñu ñu au moins def le tour du Sénégal wane parce que Sénégal yamul rek Dakar maintenant aussi dañ koy rafetlu parce que le ministre euh, monsieur le ministre euh, monsieur Matar Ba. dañ ñaan nekk ministre d'État. Mhm. donc le ministre monsieur Matar Ba. Mhm. Euh, def na lancement bi mardi au musée de civilisations noires. Mhm. et je pense que hier gis ngeen ni le trophée a pratiquement fait une, une balade mmh. au niveau de Dakar dans les dans affaires et, boulevard de Dakar dem Colobane dem Ñaari Tali dem marché Sandaga dem jaar HLM ak yooyu yëpp donc loolu dañ koy rafetlu waaw parce que trophée bi aussi man leen la rek laa ciy jàngat dafa baax parce que dina tax dina gën a jubóole yi. Mhm. mais autre chose aussi mais trophée tour bi aussi ñi créé le nom trophée tour waroon nañu xalaat parce que euh, fédération sénégalaise de football. Mhm. dañuy dem élection dañuy wax manko wuti ndam li. mooy foofu wax quoi je pense que boobu koy waroon nañu associé nit ñi boo ñi ne seen xam-xam aussi na ci communication. Mhm. parce que soo xoolee fédération bi ñuy dem dañu wax manko wuti ndam li mhm. mais am nga ndam li mais war nga xalaataan benn concept pour dem mhm. mhm. da ngay jéggaani sa li nga sa cosaan nga bàyyi ko dem wuti leneen toujours da euh, da nga war a enser enraciné wu pas xool euh, yóbbu ndam li ci askan bi wala euh, en tout cas daal ndam li waroon na ci mën a nekkaat ñu boole ci askan wi. Mhm. parce que askan wi la mais Trophy Tour le Trophy Tour ça c' copié c' est pas réfléchi y' a a aucune y' a aucune amul benn benn communicationnel bu ci am amul benn parce que communication aussi da créer. Mhm. doo jël di rek da créer am sa imagination am sa réflexe am sa am sa ngay créer. Mhm. moi je pense que mënoon nañ ci boole au moins les certains. ñi xam ne seen xam-xam màcc na tuuti communication wala ñi xam ne seen xam-xam màcc na tuuti ci ay concept hmm. booy leen ci trophée tour yaa ñu jeexale ak euh, tey ji FIFA sanction yi nga xam ne def nañu ko gannaaw suñu euh, jongante ak Égypte euh, tey lan moo tax fédération nga foog ne moo waral deful appel waaw fédération ñoom je pense que vraiment décision bu sage lañ jël hmm. décision bu baax lañ jël xam pourquoi ñu jël décision bu sage bu baax mooy que soo xoolee tey boo jël boo defoon appel. Mhm. xam nga fédération li ngeen alamaan cent seize millions xaw ma. Mhm. ak benn match yu club boo xam ne d'ici quatre ans nga koy jouer. Mhm. éliminatoire coupe du monde. donc xam nga soo ko defee. Ah, yow war nga xool ne yow normalement appel bi nga def wala wala li nga bañ a def ab baax na ko parce que xam nga lu parce que yow dañ la tënk tënk bi mooy bis biñ la alamaanee. munoo sax dem. mënoo sax dem au niveau du TAS. fenn nga mën a yem pour def recours au niveau de la deuxième juridiction de la FIFA. Mhm. te foofu boo fa demee mais mën na am waaye mën nañu alourdir la sanction. mën mhm. ko yokk parce que les gens là c' est des c' gens qui sont très solidaires. Mhm. te gis la FIFA y a des juristes allemands et des juristes arabes c' des meilleurs juristes le droit allemand c' les meilleurs les meilleurs les allemands. et les parce que moo moo tax ils sont très calés. Mm-hmm. nga yóbbu ko ñu ñu sanctionné la bu ñu la sanctionné alourdir la peine par exemple ñu ne bon léegi dañ lay trois matchs alamaan la trois cent millions. Mm-hmm. yokk nga yokk nga sa sa naqar. Mm-hmm. alors que boo fekkee ne defoo recours. fédération xam nañ ne ñoom am na ay échéances yu leen ngi préparé pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique euh, ak Côte d'Ivoire deux mille vingt trois. mois de juin bii juillet dans moins d'un mois le quatre bu nga war a yow aussi préparer wu pour la coupe du monde de football nga am ay match yoo xam ne yaa ngi koy bëgg di ko mëbët ay match mhm. chaque jour nga gis la presse di def écho way recours bi ba lay wala la presse égyptienne nga xam ne Égypte ñoom ñoo ëpp fukki yoon di def ay recours rek. Mhm. wala di wala di bind dans la presse kooku mun na divertir say joueurs mun na leen déconcentrer mun na sax yow déconcentrer euh, perturber sa préparation. Mhm. ba tax na bi ñu bi ñu jëlee décision ñoom bi ñu def Et je pense que l'appel a été suivi parce que beaucoup de gens, beaucoup de mais il y a des juristes qui pensaient que l'équipe du Sénégal devait faire un recours. Je leur dit que moi, je désolé parce que par expérience aussi, souvent dans ces juridictions-là, les gens, ils sont très solidaires. Mm-hmm. Olaf Guy parce que juridiction yi nit dañu am benn esprit de solidarité. dëgg la nangu ñu ñëw nga ñëw ñu loolu lu gën a ah, solidarité de corps la quand solidarité de corps donc mhm. voilà donc euh, moi je pense que fédération euh, maa leen ci gërëm di mhm. ay dirigeants yu mot lañ am fulla fayda lañu te ñoom mot nañu. vraiment ay dirigeants donc ñu ngi leen ñu ngi saluer cette démarche de la fédération là. te mhm. vraiment dañu koy saluer di remercier le président Augustin Senghor le ministre Ablaye euh, comment dirais-je Ablaye Sow. ak di remercier ñoom parce que ñoom euh, lu baax lañu ñu bëggal Sénégal te fu ñu jëmee Sénégal vraiment fiñ ñu ko jëlee ak fi ñu ko yóbbu vraiment am na une grande différence ñu ngi leen ñaanal yàlla euh, lépp lu ñu mëbat yàlla may leen ko parce que c'est ce que nous souhaitons parce que aujourd'hui ils ont fait plaisir à tout un 17 millions de Sénégalais. Mm-hmm. Je pense que aussi remercier le président Macky Sall, le ministre des Sports aussi pour euh, son engagement, sa détermination. vraiment son engagement, sa détermination di euh, traduire en acte concret la vision du chef de l'État. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbay Jacques. maa ngi di gërëm di leen sant.